assalamualaikum wa mbok mbokki taalibe yi mbokki jullit yi bind mii ngeen jàkkaarloo la mbindum sëñ Tuubaa la muy khassade gi ñu wax khatimatu murajat muy khassade gu doy waata yeme khassade xasida go xamni murid yep ñoo waron xam lan khassade gi wax ndax mom la sëriñ bi mujjé bind ba nopi teg ko ci dëndam tey nag ñu amoon tawféexu euh, laabiré ko mbolé mbolé mbolé julit nga xam li seigne touba wax ba ñepp xamni seigne touba du morom ñi ci andol nak son waxtan kat kenn ci ñun Serigne Cheikh Sarr Miradi moom Serigne Touba Serigne bi dama bëgg nga leeral murid yi xasida gi lu ci Serigne Touba wax ak nu mu demee. waaw ah, Serigne Cheikh naa dem ñu ngi lay baax te di la jox sa wàccuwaay li mel ne dañuy dugg rek ci xasida gi. Mhm. muy xasida xaatimatul munaajaati bil xat. Mhm. munaajaat buñ ko waxee mooy déyaaleeg yàlla. Mhm. bi Serigne gi ñu jël ci ay quelques bayit war koo firi. kon déyaale gi mu doon déyaale yàlla moom Sëñ Tuubaa mooy lii mooy mujjee déyaale mooy keroog bi nga xamee ne wax nañ ne jóge na fi mhm. keroog lii lañ fekk ci dëndam moom Sëñ Tuubaa ah, muy xaatimatul munaajaat bil xat mhm. waaye moom suñu borom moom Sëriñ Tuubaa xam na ne wa allamaka maa lam takun taalam mhm. yàlla suñu borom moo ko xamal loo xam ne kenn mënu koo xamati nee na ko xamal naa la loo xam ne kenn mënu koo xam waaye Sëñ Tuubaa leeral ci dëgg dëgg gi nga xam ne mooy yàlla man suñ tubaa leer na ma leer boo xam ne amut amut luy nëbbatu moo tax mu ne wasala lil xaqu min al xaqil mubin lii xaada maa baana wa maa laysa yadi kon loolu lu leer la waaye moom suñu borom xamal na suñ tubaa laataa muy bind mbindéef yi allama nii makaana maakaana xablal xalxi man kaana lii bi karamin wa tilxi yàlla suñu borom xamal na ma man suñ tubaa afaa mbindéef yi moom yàlla mi nga xam ne man suñ tubaab defal na mag boyal muy boyal muy mbaa yàlla yaa ngi dégg waaye li gën a doy waar ci xasida gi li mu waxaat muy lam yanhu nii lam yanhu zaati jaalibu niiraani aw jaalibu aarayni wal xusraani nee na man suñ tubaab mhm. du ma jublu ñu ne ko lu lay jublu lu lay jub mu ne sawaru adduna ak alaxira du ma jublu waaye yàlla sunu borom luy ak perte nga man suñ tubaab du ma jublu perte nga du ma jublu man suñ tubaab waaye lan yanxuni dararu naaru dunia waxta sanil baaxi bi xayri sunya yàlla suma borom it defal na ma man Sëñ Tuubaa loraange loraange adduna man Sëñ Tuubaa du ma jublu waaye yàlla suma borom defal na ma ak yëkkati bu gën a kawe man Sëñ Tuubaa jagleel na ma ko moom moom suñ moom suma borom waaye yëngu ca loolu moom man Sëñ Tuubaa sama sama mbind mii nga xam ne moom laa doon bindeeg yàlla di déeyaaleeg yàlla yàlla sunu borom yëkkati na ko waaye day mel ne li fi mu waxee ne du faatu moom Sëñ Tuubaa kenn ku ne xam na ne yàlla sunu borom wax na ci alxuraan ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt kullu man alayha faan kullu shay'in haalikun ilaa wajhihi Sëñ Tuubaa ne maxaa mamaatan xad naxaa nufoosa wali siwaaya saaxuhu tanfisa ilaa siwaa naxwi intihaa al mawt naxa nufuusa kullaha bil fawti nee na man Sëñ Tuubaa de loolu ñu naan faatu du ma jublu man Sëñ Tuubaa du jublu du ma jublu ñu ne kon lu la faatu du jubloo mu la sax faatu waaye liy njëkk faatu ay ay sukuraatu yooyu yëpp man suñ tubaab du ma faatu lam tanxu ni mu xaddamaatul mawti muy njëkkantalu dee muy sukuraat ak yooyu yëpp du a jublu kooku mu a jublu man suñ tubaab yàlla sunu borom defal nam ba faaw sama baat day yëkkatu waxat rafaxtu bil baqaa ko lu tax doo faatu mu mawtu lazina kaabaduuni badalun min mawti nafsi ma laxaani jadalun ñooñee doon ma faat bëggoon maa rey seenu dund la yàlla jël jox ma ko man suñ waaye mu mel ne yàlla sunu borom moo ma fi desal man Sëñ Tuubaa tursi anil mawti baqaaullaahu abxaadiyallaahu li wajhillaahi yàlla moo ma moo ma fi desal boppam ngir jëmmam ji moom yàlla moo bëgg ma des fekk moom man Sëñ Tuubaa kon loolu abxaadiyallaahu yàlla desal na ma li wajhillaahi ngir jëmmam ji kon yàlla moo bëgg ma fi desal moom ba faw ñu ne ko kal kooku mooy kan mu ne kafaaniyal baax yi almamaata sarmada waaye yëmu ci wa bi baqaa eh, yasuru ahmara ah, yàlla sunu borom fegal na ma ak dee ba faw waaye des gi ma fi des ci laay bégale Rasulullaahi kon loolu nag bu ñu la ko bëggee wax euh, alxuraan day wax ne ñi nga xam ne faatu nañ ci yoonu yàlla euh, danga naan dañ naan faatu nañ waaye faatu wala taxsibanna lasina xutiluu fii sabiilillaahi amwaatun bal ahyaa'un waaye waxuma la sax loolu boo xoolee dundam gépp ci kon ci yoonu yàlla wala taxsibanna lasina xutiluu fii sabiilillaahi kon moom Sëñ ci yoonu yàlla la fi jógee ndax boo xoolee juróom-ñaari at la am ci di Gabon am ñeenti at ci yéen am ñeenti at Mauritanie am juróom-ñaari at cent mu am ko njaari muy 33 ans yëpp ci loxo tubaab bi la ko nekk ba ni mu wuyu ji borom moom suñ tubaab waaye wuyu ji borom moom googu moo tax mu ne man du des du ma fii des xasidaam yi ñuy jàng saa bu ñu ko jàngee rasulullahi bépp ndax tabassamal muxtaaru min jinaasi mun subadaa bihi bakkal mm. waaye kafaaniyal baax yi nga gis ne yàlla desal na ko waaye na wala yadurni yàlla sunu borom jariñ na ma man Sëriñ Tuubaa te du ma lor mukk moom yàlla waaye du ma lor moom yàlla du lor sama dara man Sëriñ Tuubaa sama lépp yàlla yëkkati na ko tursanil amwaadi wal mamaati baqa wa asimina min chamaati yàlla sunu borom moom mi nga xam ne moo fi des daal musal na ma ci ay feebar feebaru feebar nag buñu ko du feebar bu xol feebaru du feebar bu yaram feebar bu xol lay doon yàlla sunu borom desal na ma fi man Sëriñ Tuubaa di ma fi desal ba faw te du ma mës a yokkat du ma mës a yokkat loo moom yàlla waaye yàlla xamal na ma ne moom ci jëmmi boppam bu néegam boobee di aji kawe gërëm na ma ca te yëkkatil na ma ko jox ma ko waaye nag bul bul sikki sàkka mu mujj ne bul sikki sàkka ci ne li ma la wax lu am la laa sakka fii kawniya bil amin fii hiwa bil kitaabi l amin malakani l amin wal amin kitaabu baaxi jaani tamin yàlla sunu borom sax jël na alxuraan léegi jox ma ko man seen tubaab waaye li ma gën a yéem li ma gën a yéem ci mbind mi nag seen seew naa mooy mujjantal yi nga xam ne mooy mooy mooy mooy du ta mooy jeexantal bi jeexantal waaw jeexantal xasida gi li Sëñ Tuubaa wax dafa doy waar dafa wax ne kataba bind na mhm. allahu yàlla tabaaraka wa taala moom yàlla mu kawe bi an na kaatiba naka aji bind ji haasihil xuruf yii li xaraf ki bind xaraf yii muy Sëñ Tuubaa moom mi bind xaraf yii mhm. yu jaayiruhu llahu tabaaraka wa yu jaayiruhu llahu tabaaraka wa taala day dëkkaale ak yàlla moom Sëñ Tuubaa ndax boo xoolee wax na ne jaawartu llaha bi kitaabihi ilaa duxuli jannatoo sëñ Tuubaa nee na man mi bind xaraf yi damay dëkkaaleeg yàlla moom mi aji kawe ci dunya ci àdduna fi dafxi wal jalbi ci di leen xëccal di leen dàqal aw lor man sëñ Tuubaa ni ko ñaataat mu ne arbaha mi asanatin ñeenti téeméeri at baax da xëfil xatt ginnaaw bi mu bindee mbind mi kon fii ginnaaw bi mu bindee xaatimatul munaajaat ñeenti téeméeri at dana ko fi desaat dañuy defal diñu jëriñ di waxaat daal ne waaye li a doy waar mu ne baax da xëfil xatt المحقق من الحق المبين والله على ما نقول وكيل لو غير داي وار لي امول دا خامني كون غيناو ديغا خامي ني دجن غيس موم وام شاشين تي 1927 با نيت تيمير تا تيمير ادي ما دغول با غيسن تيبا جوغي ليغي 27 با ليغي تيمير ادي ما وايي ني نا غيناو نين بجما غيس غيناو يومي ني مي ني غين ما غيس man seigne Tuubaa fi ñent témer at ma leen di jox di leen jañal man seigne Tuubaa kon loolu lu doy war seigne ñent témer at sax man na doon sayer ni comme ni nga xamé at waye sa deug deug man nako upp sax wa loolu man na man ëpp upp ndax ñom ñox fañi waxé man na naa bokk man na baña bañ bokk fi ñu dégg awliya last afhum nga xamné ñom seeni wax kenn mënu koo xam waye li day wane ne seigne bi da fi dess ba faaw ndax bo xolé mi ngi naan suñu borom dama fi dessal abghani allah li wajhi moom mom yalla mo fi dessal ngir jëmum ji kon mm-hmm. seigne Tuubaa yalla bëgg mu dess fi mm-hmm. desug Sëñ Tuubaa nag bu buñ la ko waxee ne gis nga loolu lool day day joxe misaal ci ne gis nga bisam bu ne mhm. day gàcceel beneen bis loolu nag mooy ko fi des mhm. ku fi dul des saa bu faatoo ñu fàtte ko waaye Sëñ Tuubaa 1927 la fi jógee ba jamono jii may waxee yow nit ñaa ngi bëgg gën a yi di gën gën gën ma bëgg a laaj tuuti rek loo xam ne xaw na maa jax-jaxe tuuti mhm. ci xasida gi nga doon firi ba tey lay doon muy malakan yi euh, malakan yi amiri gi wala aminu ñaari amin yi lan lay signifié ñaar amin al amin bu njëkk ji. yenent bi sallallahu alayhi wa sallam. lay wal amin geneen gi jibril la. loolu nag Dinasa mhm. majaas jinaasa euh, lañ koy wax jinaasa. jinaasa moom la arab di wax jinaasa. jinaasa mhm. taam ak xayru taam daam. Mhm. mooy ñaari baat yoo xam ne ñoo nuróoti bokkuñu lu muy firi. loolu loolu loolu lu wér la ñaari baat yoo xam ne ñoo nuróoti bokkuñu lu firi comme lu mel من الحق جاء الحق للحق في سهب بحق مع الأبرار حين أسير يلما من أسير مع الأبرار حين أسير وصلنا إلى أني هناك أسير قبل نيار نيار ينون روت بكل للفري لو نكسن تبعنا نون نيسابو كمسان muy ñaari baat yu niroo te bokkuñu lu ñu firi saa bu ma ko mosaan def yeneen bi day kontaan. tabassama al min jinaas yi muusu badaa bi ci ba nee na su ma defee jinaasa yeneen bi iblis jooy tabassama al xam ne moom sëñ Tuubaa kenn moom jërëjëf sëñ Cheikh Sarr mbokk yi di daa mënutoon ñàkk mm-hmm. sëñ Tuubaa moom gi moom mbindee fi moom jamono mm-hmm. xas bi gi daa tënk lépp jëmmalo jot joo xamante ne buñ buñ buñ tàmbalee li nga waxtaan yëpp dañuy gis ne moom àdduna moom alaxira kon jërëjëf sëriñ Cheikh Sall Miladi ñu ngi lay ñaanal bu baax taxawaay bi yàgg sant nañ bu baax mm. jërëjëf sëriñ Tuubaa Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul